sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu àggale liggéey bu am solo bi nga xamante ne bii tàmbali woon nañ ko mën naa ne sax ëpp na at muy euh, di tabax hôpital bu mag ci Tivaouane hôpital Seydil Hadji Malick Sy mu nag amoon volet bu am solo mooy ñi nga xamante ne bi ñoom moomoon suuf sa ñu waroon leen dàmp loolu nag boobu ba léegi ñu ciy liggéey ba yàlla tey la def mu sotti yoon bu gudd la nag yoon bu yàgg la yoon bu metti la mais tey yàlla sottal na ko loolu nag ñu ci gërëm yàlla mais aussi di ci gërëm euh, ñi nga xamante ne bii ñooy famille impacté yi mooy borom suuf yi nga xamante ne bii dañoo mas a ànd ak dal ànd ak tey mais aussi gëm aussi li leen état di wax di leen administration di wax moo tax tey jii déggulee leen fenn ñuy manifester wala ñuy naan dañuy bloqué liggéey ba wala ñuy def leneen ndax tey jii bu ma leen nee tey lañ jot seen seen ndàmpaay te pourtant projet ba tàmbali nañ ko tabax ba mu toll nii àgg na loolu xam nga kenn mësu ko gis bu doon feneen la wala bu doon ñeneen la tey jii dañ naan balaa ñuy tabax benn brique ñu jox sunu sunu sunu sunu ndàmpaay mais defuñu ko suñ ñëwee sama bureau bu ma leen nee buñ leen balay yàgg dinga jot seen xaalis dañ ko mës a gëm kon nag tey jii am nañu mbégte bu baax a baax. di wax ne tamit état du Sénégal lii moom mos a nekk moom objectif am maanaam du jël alalu kenn ba pare te du ko dàmp dañ leen mos a wax ne leen hôpital bi duñ ko mos a inauguré te fekk njaboot yi ko séq woowu ñu leen jox leen seen ndàmpaay loolu nag kon yàlla def na ko tey kon muy lu am solo di gërëm aussi waa FONSIS ñi nga xamante ne bii ñoo yore projet bi nga xamante ne lu leen daj ne ko tam ci dossier bi pour que mu mën aboutir ba ñii mën a jot li nga xamante ne bi mooy seen ay seen ay ndàmpaay gërëm aussi monsieur le maire de la commune de Tivaouane moom tamit en tant que municipalité ci délibération yaag lépp lu aju ci accompagnement de la famille ñoo tamit li leen ci war yépp vraiment loolu def nañ ko di ñaan yàlla rek eh, eh, liñ leen ndàmp yàlla na yàlla def ci barke yàlla na leen jik su ko defee nag ñun ñëpp tey danañ am féexu mën a jublu ci inauguration hôpital bu ko yàlla tuddee te duñ am benn xëy na xaar ma yàlla ak kenn fekk nañu ñi am yëpp àq jox nañ leen seen àq loolu moo doon sunu sunu sunu objectif te yàlla defal nañu ko tey. juróomi famille yi nga xam ne ñoo seq mbir mi yëpp tey jii jot nañu seen seen seen seen seen ndàmpaay am na ki nag koo xamante ne bi yàlla dafa def mu mu jiitu ci diggante bi yàlla def ci moom la gën waaye loolu nag xam nga mbirum yoon rek am na yoon bu ñu teg famille bi pour que ñu wut ay këyit yi ci war. su dajee rek dinañ leen jox li nga xamante ne bii moom mooy eh, waaye chegam ak li ay lépp moom génne nañ ko ba teg ko de côté kon loolu dañ jàpp ne mbirum këyit la waaye moom eh, yëf yi dèjà mi ngi fi te am na ki sax kenn ci waa këram ñu teewoon fii ba ñu waxtaan ak moom ci fànn boobu kon ñi ñëpp mën nañ na jot nañu fàttali aussi ne suuf si tamit mi ngi tolloon ci six hectares yoo xamante ne bi cinq familles ñoom ñoo ko séq kenn ku ne tey jii kon jot nga li nga xamante ne bi moom la état diggante woon ak yow. Babacar Gning directeur général euh, Francis. projet bi dafa nekk projet bu am solo ndaxte hôpital bu mag la nekk hôpital bi ñëw hôpital régional nekk EPS 3 dina am lu mat 300 dina am euh, centre de traitement des grands brûlés mooy lakk lakk yu métti yi fu ñu koy fajee dina am fu ñuy fajee tam cancer donc euh, ak chimiothérapie dina am tam fu ñu jàngalee ndax jàngale dafa am solo étudiants yi fu mu mën a jàngale am amphithéâtre bu 200 places. hôpital bi bés bu ñu ko ubbee non seulement Tivaouane waxuma Yadieng ak Tivaouane seulement mais même région de Thiès bi yëpp dina leen mën a servir mais tamit tous les autres régions yu wër région de Thiès tamit dina leen mën servir parce que dina nekk hôpital boo xam ne c'est un hôpital de référence moo tax population tam dañu war a sant parce que projet bi fekkee fonds si daf si dugg cest à pour jàppale état bi ñu mën ko génne lu mu gën a gaawee pour projet a gaaw il faut que foncier bi bañ a nekk problème ne projet bi projet bi askan bi yëpp lay jëriñ projet bi waa Sénégal yëpp lay jëriñ mun nañ ne sax mun na même les pays voisins moo ñu nangu woon ne bàyyi état bi tàmbali projet bi door projet bi sans ñu seen impasse voilà boo doon xoolee fu ñu toll ni projet avancé na trop léegi lañ doog fay impasse yi ci population yi ya kaasuñu si yàquñu si mais au contraire dañu doon jàppale di ñu xelal ba pare ubbi dalal gan yi fi doon ñoo di liggéey si projet bi vraiment defe naa loolu c'est compar jikko bu rafet la boo xam ne dañ ko war a dañ ko war a souligner parce que projet projet Sénégal yëpp bu doon demee nii defe naa retard yi ñuy wax si projet dootul am. mënuñ gu ñu wax ne travaux bi dafa am at bi di jeex loolu mooy ko sànq préfet rappelé projet lu si am solo mooy qualité. projet kenn waru ko yàkkamti rek ndax ay affaire boo xoolee hôpital bi bu su ubbee war na mun a fonctionner lu mat ay 30 ans wala 40 ans wala 50 ans sax moo jël hôpital bu mel ni Dantec ça fait 100 ans moo ngi fonctionner moo tax ñun tamit euh, état bi ak ministère de la santé dañu ne waa FONSIS fa ngeen dugg si pour ñaari yëf mu gaaw mais benn ànd ak qualité nekk hôpital boo xam ne day nekk de standard ba pare permettre Tivaouane nga xam ne dëkk boo xam ne day day day màgg temps mun a boo xam ne dina ko gunge si ay yu bëri moo tax qualité dafa am solo si am na lu ñuy owee pôle mère enfant mooy maanaam daal lépp loo xam ne mooy service médicaux yoo xam ne dañ koy soxla jigéen buy matu ak bébé bu doog juddu lépp lu ko wër dina am si hôpital bi si en matière de service maanaam équipement yi. ak salle d'opération yi maanaam daal côté boobu hôpital dafa mat dafa mat sëkk nga xam ne duñ soxlaati kenn dootul soxlaati jóge ci waawoon di dem yeneen région yi wala di dem feneen pour pouvoir am service de soins yu ñuy waxee tout ce qui est pôle mère enfant. maa ngi tudd Cheikh Ahmed Ba représenté famille Feu Galoba bokk ci impacte yi nga xam ni moom la hôpital bi laal. di sant yàlla bu baax rek ndax euh, metti woon na début bi mais nag wax dëgg yàlla kontaan nañu. ndax man yàgg naa liggéey fii mais lii ñu ñuy defal tey laa ko mos kon ñu ngi bëgg bu baax di sant yàlla yàlla nekk suñu muum di hôpital bi yàlla nañ ko jariñ li ñu ci yéen ci yiw ci mu yaatu yàlla yàlla def ko ci barke léegi kay paas na te ñu kontaan parce que surprise nag la am man yàgg naa liggéey fii ci wàllu impact mais impasse bu toll nii tey laa ko mos wax dëgg yàlla kon ñu ngi sant waa SONSIS bu baax. liñ da dama la man yàgg naa liggéey ci affaire commission bi évaluer impenses yi mais dama ne la impense bi ñu jot tey maa ngi koy soog di gis pour la première fois kon ñun kontaan nañ bu baax ndax ëpp na suñu njort waaw wax dëgg yàlla ëpp nañ suñu njort. je profite de votre antenne pour remercier d'abord le préfet parce qu'il n'a ménagé aucun effort pour que les impactés puissent. être payés. Je remercie également l'équipe de Fonds 6 parce qu'ils nous ont prêté, prêté une oreille attentive. On n'a pas eu de problème. On s'est compris. Quand la situation a été un peu floue, il y a eu une rencontre qui a eu lieu avec le préfet et tous les acteurs et la situation a été débloquée. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents parce que c'est la première fois qu'une impense d'un montant pareil puisse être payée. Parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans la commission départementale de recensement des impenses. Et c'est la première fois que je vois un tel montant. On est très satisfait. Merci beaucoup.